Euh, vidéo nga xam ne viral na ñu ñu ñu mu indi ci ay weddi ak yoo xam ne am na ci waaye tamit yow moo bëgg nga taxaw ci moo di suñu sukkandiku xam ni euh, ANSD amal nañ ko ci lu jëm ci wàllum euh, fécondité moo di limu njur yi nga xam ni mooy am ñoom moo di wàññeeku na bàgg ci loolu ndax Sénégal la ñu xamal moo di atum 2002 moo di boo gisee jigéen gu nekk daanaka mën naa am mu toll ni atum 2023 li ñu xa seetlu moo di jigéen bu amaana maanaam juratuñu jur waaw wàññi leen jur bi waaw noonu xam nga loolu ci wet amaana ñu dañ koy layal lu baax la hmm. ndax mën naa am surpopulation am pauvreté nangam ci wet ñu a ndax loolu mi ngi nag Sénégal waaw man naa commencé fële ci fake news yi kay dafa dafa sonal askan bi hmm. moo tax cybercriminalité il faut que ñu liggéey ba pare il faut que Sénégal tamit ñu appliquer la loi quoi il faut que ñu sévère hmm. état d'âme yi ñu arrêté ko parce que léegi euh, li Cheikh Fall di wax ni on sait à quel saint se se vouer da ngay seetaan vidéo yow doo ñemee wax doo ko ñemee commenter parce que xamoo ndax dëgg la wala ndax du dëgg. Mhm. manipulation politique bi dafa bëri. Mhm. xam nga lii manipulation politique la parce que da nekk beneen parti. Mhm. bëgg a manipuler benn image. jàllale ko. te au fait nit ñi état d'esprit tolloowuñ. am na ñoo xam ne ni liñ gis rek lañ gëm. te li olof naan fa yow la duma eggu fa. fa yow yegg du waaw merci mm-hmm. tu vois mm-hmm. donc kon ñoom ni ñuy def ba manipuler mm-hmm. yow peut-être mën nga bañ a am potentiel potentiel boobu pour demaat foofu yëpp weddi moo tax il faut que ñu appliquer ay rigueur ci loolu te loolu manipulation politique boobu loolu fenn la mensonge la génne benn vidéo dugal ko ci benn kii bi ci manipule loolu mensonge la te yeneen bi daf koy tere donc man loolu man vraiment les autorités de l'État bëgg naa ñu jël ci ay mesures nga xam ni képp ku nekk ci internet bi di jàllale information boo xam ni c'est faux. Mm. ñu teg la si yoon. loo loolu il faut qu'on soit rigoureux. Euh, kii euh, Omar. oui di nga ñu bari. mais il le faut. pour assainir. mais jar na ko nag. Birame jar na ko grand. Birame jar na ko jar na ko. kaso yi xat na. grand. jar na ko jar na ko tout le monde n'est pas journaliste dans ce pays. Mm-hmm. soo demee ba bëgg nag relayer benn information. Mm-hmm. ah na nga am lu la leer. parce que code de la presse bi. Mm-hmm. peut-être mën na couvrir journaliste yi mais couvrirul activiste yi ak manipulateur politique yi. beneen bi mooy ministre bi moom na nangu ni plateau médical bi au Sénégal dafa faible ñoom loolu la ñu hérité xam nga tamit souvent soxlawul ngay ngay ngay défendre trop. yow lii nga hérité plateau médical bu faible bu faible. Mhm. lay ñëwal tu rassures. Mhm. nga wan ni ñun on est venu pour renforcer le plateau médical. Mhm. pour man loolu mooy discours bi soxlawul. yenn yenn kii mais am na benn problème bu bu bu bu hôpital yi euh, am problème muy muy kii le programme de gratuité euh, des soins ci ci ci les troisième âge là. mais dafa créer bor yu bëri ci hôpital yi xam nga hôpital yi dañu seen seen seen fonctionnement. Mm. à moitié privé plan Sésame à moitié plan Sésame à moitié privé la mm-hmm. ñoom dañuy soxla ay ressources pour dox yenn employés ñoo leen di fay mm-hmm. yenn dépense ñoo koy def mm-hmm. mais état bi daleen leen yoreel ay milliards yu dul jeex Macky Sall te loolu dafa am lu bëri lu ci lëndëm parce que dama xam ay nit yuy liggéey ci ay comptabilité ci ay hôpitaux dafa bëri lu ci lëndëm parce que gonflement de factures yi daf ci bëri ci directeur directeur hôpital yi na état bi auditer loolu ba mu leer nañ Mhm. lool c'est important. Mhm. su ma bëggee jàll nag ci point bi nga ma wax bu ma relancer ça me bien parce que man. Mhm. man moom 40 laa bëgg am moom. 40 doom <laughs> parce que yeneen bi nee na nañu yokk xeetam sallallahu alayhi wasallam nu gën a bëree. Ah. te Baye Niass jàngale na ni nit bul ragal ñàkk. bul bul daw dépense ba ni da ngay limiter. sa njur léegi nag ñun on est victime d'une politique étrangère. on est victime d'une politique étrangère bu njëkk bu njëkk nit su doon am ay ñetti doom ñeenti doom juróomi doom sax nit ñi dañ koy yërëm dañuy foog ne dafa yara dal mhm. waaw léegi nag nit ñi il sa contente de ñaari doom laa am te ci laa fas yéenee yam mhm. loolu c'est tre c'est très grave man de lool góoma loolu très sincèrement léegi nag mhm. politique bi ñu nga xam ne nii on est victime mooy politique bi tubaab yi gëmee nii ñoom la puissance démographique africaine est inquiétante xam nga Sarkozy ñëw na fi wax ko fi. <laughs> mu ne la puissance démographique africaine est inquiétante. Mhm. parce que Afrique 75 pour cent la ñu wax au Sénégal par exemple 75 pour cent. Mhm. de la population est jeune. Mhm. xam nga ne ñooñu doo leen organiser ñu am discipline nga jàngal leen <laughs> dañuy avancer. te gars yi dañoo nekk di concurrencer. ak. africain yi mhm. moo tax façon programme bu nekk dugal nañ ko fi mhm. jaarale ko ci jigéen ñii mhm. ñoom yaasin programme yi ci day jóge ci ONG yi jaar ci féministes yi egsi yi xale yu jigéen te jigéen ñi léegi féministes yi lañuy ñuy gën a gëm seen jëkkër yi ah. féministes yi tas nañ sëy yëpp tas nañ amu ko jëkkër naa la wutal jëkkër <laughs> am nañ am nañ féministes yi loolu may man waxuma féminicide. mais mot bi nga utilisé. tas sëy. sëy yu tas yi. moo tax doom yi bareetul. c'est-à-dire que dans l'analyse bu gën a mm-hmm. profonde. Mm-hmm. Ah. parce que léegi y a beaucoup plus de divorce. Mm-hmm. daanaka léegi surtout xale yi da gis ko sëy tey. Euh, trois grand divorce yi nag am na lu am na luy motiver divorce yi xam nga divorce yi dafa am lu koy motiver. Ah? xam nga lan mooy motiver divorce yi moo tax lii lii c'est un problème sociétal boo xam ne grand. war nañ ko waxtaanee. divorce yi dafa am lu koy motiver ci jigéen ñi mooy liberté. Mm-hmm. jigéen ñi léegi parce que li ñuy image bi ñuy jàng ci réew bi mm-hmm. ñi ñuy gis ci télé yi ci TikTok bi da ngay gis ku nekk ci TikTok bi un mois deux mois nga siiw mm-hmm. commencé dawal oto parce que dafa am les promoteurs de la médiocrité les promoteur de la perversion ñoom ñooy jaay image yu jigéen yooyu nga xam ni sont des femmes libres mais la com mais mais mais euh, responsabilité partagée. waaw léegi bi defee. waaw góor tamit am na ci responsabilité. waaw d'accord léegi mais Omar la am na benn phénomène bu ñu génnoon. Hmm. loolu tam bokk na ci li nga xam ne tamit xale jigéen ñi duñ ci yeewu parce que da ngay doon gis ñoo xam ne dañuy dem louer ay bijoux de. Hmm. bijoux la ñuy dem louer ji. ka leen koy louer day toog. Hmm. ñu génne ko filmer ko nii. génnee 3 millions yi filme hmm. bu ko def ñu ne jiw may nañ ko 3 millions may nañ ko bàgg en or te fekk xoolal dañ ko loué de. léegi yow mi koy seetaan nga teg nga jël sa bët teg ko ci. jàpp ni mais ngeen yeewu ngeen seetaan xam nga seetaan na ko ci télé. Hmm. Mhm. TikTok nga koy seetaan. Hmm. moom laa la wax sànq. léegi lépp loo dugal ci TikTok. on te croit. <laughs> moo tax xam nga les chroniqueurs yi ngay gis. ñu ci bëri. xam fu ñu jógee TikTok. am tur ak sant rek léegi tu te permets plateau di dem ci plateau yu mag mm, mm, di mm. tudd ñoo xamee ni duñ sax say morom mm-hmm. am na ñoo xam ne leen tudd dëgg la am seen bopp euh, mais tu vois un koo xamee ni bërki dem personne ne te mm-hmm. jàngoo ko ni rien du tout mm-hmm. ñëw toog di tudd naan Birahim nangam wala Birahim nangam te fa Birahim jaar la mu jàng jàngoo fa mu jaar ak la mu am ci nit di koy sol xam-xam. Mm. di ko sol chaque jour. Mm. mu waxtaan ak nit yow amoo loolu. tu te permets di mën a critiquer bay tudd Birahim Touré. c'est mm. parce que dañ laa may possibilité moo def ko. Mm-hmm. te lan moo koy TikTok yooyu la. réseaux sociaux yi. nga ñëw nag siiw gis am nga nangami vu rek. nga ne tekki naa tekki woo. <laughs> te noonu ngay lëre les Sénégalais. Mm-hmm. ñu lay gëm alors que la ngay wax. Mhm. benn base bu bu normal. solution si mhm. benn solution bi lan la solution fii xam nga gis nga réguler les réseaux sociaux. pour CNRA mi mi ngi wax mi la Birahim. CNRA mu war a wax wax bu ko CNRA bu doon wax rek. Hmm. dañoo ne ni léegi damay jël benn décision.